sa tur ak sa sant di jaajëfal bu baax ci teewaay bi ngeen teew tey ñu ñëw fii ci école bi seet si ki nga xamante ne mooy Fils de Balla Fils de Balla war a bëri la 14 août diggante ak Gora Sock mu nekk combat boo xamante ne jam production moo ko organisé dégg ngeen Gora Sock barki démb bi ko presse bi demee seeti wax na ay waxam sànni ko kii di Fils de Balla Fils de Balla tey war naa tont lan lay tontu Gora Sock parcelle dañoo booloo doon benn créé lii di cent deux cent pour cent am ci ndam bu rëy seen diggante ak soq bi yoon ñu duggaat ci Fils de Balla dugg géejawaay nan lay waajee ak ay mbokkam ak préparation bi ak Gora Sock ñu ngi lay nuyu baax Fils de Balla waaw maa leen fay ginnaaw bañ sant yàlla jël seen bi sant suñu ñaari waajur bu baax di sant sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel di sant njabootam yëpp waaw di sant sama papa bu baax ak sama yaay sama magi su mel ne ñoom Aliou Ndiaye Papi ñëpp di bëggee tamit waa Kër Balla Gaye bu baax a baax sama xarit yi gars yi nekk fii di leen nuyu tamit waa presse bi yéen ñëpp ah. 200 hmm. pour cent bu parcelle créé. Uh-huh. génn ci seen sortie bu njëkk am ndam ndam lu rëy ñu duggaat ci géejawaay am Fils de Balla Gora Sock nee na fi ñu jaarale woon say morom rek la lay jaaral. moom dañuy dañ leen bëgg xamal ne Pikine du géejawaay. Ah. géej géejawaay lañ dëkk te ñoom xam nañu bu baax. lu tax nga ne Pikine du géejawaay. non duñ benn xam nañ xamante nañ rek. lu ngeen xamante. non parcelle xam na ñu. nuñ leen xamee. xam bu baax te lu 14 dinaa ne góor sax yóbbu ma. ci nan lañ la yóbbu rek. ci nan lañ la xamee. non dinañ dañ ko bàyyi bés bés bu rek. a bëri mbëru parcelle. bëri naa mbëru parcelle. ñaata yoon benn yoon oninga laa ko nag daan ko. duggaat ci góor a soog. waaw dootoo nee na. pare na du may duggaat su ma paree fa laa jëmaat su ma paree si ñoom laa jëmaat. da nga ñeme góor a soog trop saa yu ngeen jàkkaarloo nga ne ko tàppet nga amoo lan moo tax nga ñeme. non du question la ñeme maa wul sama bopp rek nekk xale loolu la rek góor sax du moom mooy téye ci làmb mënu koo sax. Hmm. mënu maa téye ci làmb sax. Hmm. Fils de Balla ñu ngi lay nuyu di la jaar di la jox sa wàccuwaay tey gis nañu combat bi njëkkoon na yàqu. Hmm. tey suñu mu defaat mu ñëwaat la kàlla ngeen koy bëri. mais dama gis tey da nga da nga ñeme sa gan trop. dan laa dee wala koo xam wala moo xew ba tax jamono juñ toll nii nga ñeme ko lool. non kenn mësuma dee sax man koo ma bëri nii laa mel man ñëpp ñu ma mës a bëri nii laa mel damay wax jaay làmb ji ndax dañ ñoo fay promoteur dañoo fay fayu ñu rek pour ñu noppi ñu jaay làmb ji jaay bés bi bëgg nañ ñoom soq def làmb ji ñu def noonu nu ko raw làmb moo tax ñuy wax rek mais du dara. mais tey jii gis na def physique bu tar. làmb ji ko laaj wala da bëgg am leneen loo wane. non dégg nga làmb ji ko laaj rek làmb ji lu koy def bàyyi ñu benn côté lépp lu mu lépp lu mu laaj dañ koy def waaw ah, pare ci côté ba. baat bi sifflé lépp maa koy def Goro Sow la mu taxaw rek maay def lépp. li nga xam ne yomb na de. maa fii de xare. Ah. maa ñëw bëri si moom na taxaw rek. na bañ a dafay déplacement rek loolu laa koy sant. moom nee na daf laa mere parce que day bëri mbër moo xamante ne yarul kaddu bu nekk la koy wax te kaddu boobu day génn ci lamb. waaw léegi lamb ji na ma yar. wóor soog bu lamb jee nga yar ma. na bu ma ñëpp gis nañ parcelle fan yi ay seconde lañ jël te góor soog dégg nañ ko keroog yéen ñaar seen toogaay mu ne la moo la mën moo la ëpp doole moo la dàq bëri ay seconde est que tey bu la mayee deux secondes ci lay bëre ci lay xeex si la lay daadee. loolu mënul nekk sax. pungalub jëm nga naan ay 7 secondes ay 2 secondes loolu daa mun a ne man dama xale nag ci làmb man su ma taxawoo rek ba dëgër rek. arbitre war a rek set secondes yi jeex na. góor soog loolu day nax ay supporter rek mais man kenn du ma appelé seconde te mbër musuma appelé seconde. man sama moroom góor du ma jàppal seconde sama moroom góor du ma manipuler si làmb amul. est Mhm. Zongale kañ laa koy daane si làmb général nan laa ko daane. Tafaleer nan laa ko daane. Balla Gaye Junior nan laa ko daane. Woosu Jàmbaar nan laa ko daane. Mbay Guy gi nan laa ko daane. mooy zongale moom na jàpp loolu rek. nee na fàtt na sa taatu wëlis de. <laughs> kele boo indi ñu teg beneen ñu teg beneen. boo fàtt rek ñu tegaat beneen. mais yow loo bëgg ci làmb am na parcelle. a bëree. mënuma yow mënoo koo jàpp góor moom mënuma résister. bu dëgg neexee rek mënuma résister. gën a féete de ma ëpp doole. te bu làmb jaay naa wane. mais uh-huh. la bëgg nga xam nooy def say supporters ñu lay xaar bu jour ba. non làmb ji lu mu lamb ji lu mu laaj dama koy def